والقلم وما يسطرون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 asalaamualeykum wa rahmatullah mbokk Mouhalim info tv international ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare di am mbégte lool di dellusiwaat ak yéen ci li nga xamante ni moom la ñu jël ci ay information ki telegram muy ay xibaar ak barkiyaat ci li nga xam ne mooy crise bi xew euh, ci Palestine ak aussi entre Israël ak euh, l'axe de la résistance euh, mu nekk loo xamante ne ni depuis ci ay bis euh, yu bari ñu ngi koy topp ak yéen tey nag yi ci gën a fës mooy toujours comme toujours mooy problème mu Gaza waaye également ci Jordanie muy al tufal xarbiya nga xam ne comme ni ngeen ko xamee fan yi weesu Israël gën na intensifier foofu ay attaque am indi fëra déploiement boo xamante ne ni bu mille la donc lu toll ni junni ci ay soldats ko dégg ngeen démb newoon na day retire soldats am waaye daanaka dara amu ci lu déploiement la soxla parce que dafa dajeek euh, maanaam résistance bu farouche bu sévère ci ñi nga xam ne mooy waa Cisjordanie waaye li mu yaakaaroon ak surtout ñooñu arme yu bees yi ñu amee ba man faire face ak seen euh, attaques yooyu israélienne loolu daf leen surprendre moo tax ñu taxawaat pour xoolaat waaye teewul am na yenn bërëb ci euh, fi nga xam ne mooy si Cisjordanie ñu ngi continuer di ko attaquer parce que loolu yëpp bu ngeen ko gisee mooy faqdaanul stratégie mooy amatuñu stratégie Euh, également gis nañ ne euh, Dufal Xarbiya si Jordanie mooy gën a nar a grave Gaza parce que foofu dañ ko préparé bu baax a baax a baax ci wàllu armement ci wàllu lépp ak nit ñi former leen xam ne bis bi dina ñëw pour daje ak israel donc buñ fa jógee ñu wax tuuti rek ci Israël euh, ak pays arabes yi. ni ñuy jàppante ci wàllu maanaam renseignement ci wàllu militaire ak yu bari économique euh, ci yu gàtt rek tënk ko nga xam ne moom la ñu am ak euh, pays arabes ñu ko ciy jàppale bu baax a baax a baax ba ñu ci ay coopération moo tax euh, suñu première information mooy ki nga xamante ne mooy Khalil Al mu nekk responsable bu mag ci kii nga xam ne mooy euh, l'organisation bu alxamas bu xamaas ci jëmu boppam nee na bépp ittifaaq muy juboo accord boo xam ne euh, mun nañ ko def ak Israël li ci jiitu mooy Israël dafa war bàyyi tooñ bi arrêté guerre bi ba pare jóge bande Gaza completement mu bokk ci aussi lax de Philadelphia muy Rafah bi nga xam ne Israël moo ko bokk ak Égypte te Égypte ci ñàkk solo bëgg ko bàyyi ak Israël bu ko defee Israël continuer dominer Palestine mu nekk loo xam ne warul am parce que comme niñ leen ko waxee woon kii di Égypte moom amoon na accord ak euh, Israël ci Rafah ne foofu mooy seen démarcation donc ci euh, accordu Camp David yi donc euh, te it aussi bokk na ci churut yooyu nga xam ne moom la Hamas teg ñetteel bi mooy déplace yëpp dañuy war a dellu fi ñu dëkkoon librement saa ñu inspecter leen waaw donc euh, te aussi dimbali euh, ñi nga xam ne mooy palestiniens yi le peuple palestinien ñu reconstruire waat seen dëkk defaraat yi nga xam ne dañ ko yàq yi nga xam ne euh, mën na dem accord yooyu bu amee rek Euh, nekk na ak di mën a nekk loo xam ne lu sérieux la te mën na jur parce que même pour defaraat bi kooku pays arabe yi sax ñoom d'accord nañu principe bu ñu dina mën nañu reconstruire Gaza waaye daf ci am lu ci nekk parce que euh, mooy il serait impossible parce que zone la boo xamante ne ne armes yi ñu fay utiliser ak niñ ko yàq dana dem ba dafay invivable et aussi dañ ci amoon ñoom projet boo xam ne bu nëbbu mooy déplacer waa Gaza yóbbu leen Sinaï bu ko defee euh, ki nga xam ne Égypte sax commencé woon na construire foofu ndax gaz yi nekk ak suuf si nekk richesse bi fa nekk ci Gaza loolu moom moo taxoon euh, ñoom ñu bëgg a guerre bi ñu def ko euh, muy ñi nga xam ne ñoom ñooy Israël ak Amérique te ñi nga xam ne ñoom ñooy arab yi ñu dimbali leen ci ba tey ki nga xam ne mooy Khalil al wax na ne euh, euh, ñoom ci seen jëmu bopp lépp loo xam ne luy indi jàmm la muy waa ñii di Hamas euh, def nañ ko yombalal nañ ko waaye à chaque fois que bu ñu demee ba yaakaar ne jàmm mun na am rek kii nga xam ne moom mooy Netanyahu dafay déreboyu yóbbuwaat mbir yi ci point zéro bu ko nekk bu ko defee mu nekk benn cercle vicieux boo xamante ne ni day jafe pour que ñu atteindre seeni jubluwaay objectif yi nga xamante ne ni moom la ñu leen fixé te également l' administration américaine ak Biden euh, ñoom ci seen jëmu bopp euh, euh, maanaam dañoo mel ni comme ñoo xam ne dañoo gumba tëx ci li Israël di def di jalgati li nga xam ne mooy accords yi di indi ay obstacle saa yu ñu demee ba bëgg a trouver solution rek ñu indiwaat beneen problème donc loolu moom la xayya euh, wax mu nekk loo xamante ne ni lu doy waar te loolu selon waa Hamas mënul indi jàmm ci fi nga xamante ne ni moom mooy euh, euh, Gaza ndax obstruction yi nga xam ne ak ak évasion yi nga xam ne Netanyahu mu ngi koy def ba ci xusi yu nii ñoom ci xam ngeen ne bërki démb yëpp ak démb ñu ngi def ay manifestation yu mag a mag a mag de soutien à la cause palestinienne euh, ñoom nag déclaré nañu ne ñoom seeni noon ci jëm boppam actuellement li nga xam ne moo doon xeexu mer rouge muy baharul ahmar euh, foofu ci jëmu bopp euh, ñëpp xam nañ ne échec loo nañu la marine ota ki américaine waaye aussi OTAN ci jëmu boppam parce que xam ngeen ne britannique yi ak français yi ak euh, italien yi ak euh, allemand yi ñu ngi faak seeni navire waaye mënuñu ci dara ci li nga xam ne ñoom moom la ñuy def ñoom Houthiyun yi waaye également gis ngeen américains yi sax dañuy mujj dawal seeni avion euh, seeni porte avion génn ko fi nga xamante ne mooy mer Rouge parce que xam ngeen felloon nañ ci seen porte avion ba ñu indi beneen teg waaye fi mu nekk ni ñemeetuñ faaw donc loolu mu nekk selon xosiyun yi nekk nga ñaay bu mag a mag a mag ci li nga xam ne moom la euh, def ci opération euh, contre bépp navire boo xam ne dafay dem ci euh, fi ñu tuddee Israël moo tax mu ñu tegaat ci ne ñoom noon yi muy Amérique ak tubaab yi ci seen jëmu bopp am nañ mbettaande lool Euh, euh, euh, ci li nga xamante ne moom la ñu gis te li ñu nar a gis ci suuf mooy gën a garaaw li ñu gis ci biir géej te ñoom ñi nga xam ne ñooy xosiyun yi muy yéménite yi am nañu ay nouvelle technologie yoo xamante ne ni musuñu ko am dans leur histoire militaire waaw seen taarix askari musuñu am lu toll noonu te nee nañu doole boobu nga xam ne am nañ ko dinañ ko boole contribuer ko ba nga xam ne dina mën a gën a mën a toroxal ñi nga xam ne ñoom ñooy Amérique ak ñi ànd ak ñoom bi iznillahi taala noonu lañ ko waxe ñoom donc ba tey xusi yu ni ñoom nee nañ du ñu bàyyi mukk mukk mukk euh, peuple palestinien bi maanaam am ci taxaadul maanaam bàyyi ko abandonné ko feek ñoom ci seen jëm bopp ñu ngi yëg ci ñoom ne am na deret buy euh, maanaam daw ci seeni yaram waaw ñu ngi yëg seen bopp donc fekk ñoom ñi ngi am seen dund ñoom seen jëmu bopp dinañu lépp lu ñu man dinañ ko def pour wane seen ngëm wane seen ndogu wane seen njàmbaarte pour dimbali seen mbokki waa Gaza lii nag jullit ñëpp waroon nañu am même position bi bi nga xam ne moom la yemenet yi mais malheureusement ñi ngi ci yeneen te ñoom it yi nee nañ continuer Euh, euh, euh, di wax ñi nga xam ne ñoom ñooy Israël ak Amérique surtout ne seen réponse mi ngi ñëw waaw seen réponse mi ngi ñëw mooy dinañu fayu ci kaw Israël te dina bett ñëpp te Israël dina xam ne dóor nañ ko moo tax aussi ci beneen information ci maanaam agence de presse yi nga xamante ne ni mooy israélienne ne département d'État Euh, wax na jotal na ko mooy xam ngeen ne dafa am benn citoyen américain boo xam ne si Jordanie euh, euh, israéliens yi dañ koo rey mais foofu américains yi nee nañu ñoom ci seen jëmmu bopp ñu ngi xool information yoo xam ne lu tax ñu rey ko moo nekk ci ginnaaw ñu rey ko ak yu demee noonu waaye xam nga affaire de complicité la entre ñoom du mujj fenn moo tax it ki nga xam ne mooy Itamar benn giir muy le ministre israélien de la sécurité ba demoon démb ci benn plage Tel Aviv pour visiter ko waaye ñi nga xam ne ñoo fa demoon ci plage ba ñoo ko mujj dàq waaw moo ba mu daw image yi gis nañ ko mu daw moom ak ñi nga xam ne mooy sécurité am euh, taxe ko de meurtrier koo xam ne reykatu nit la mu nekk loo xam ne lu doy waar beneen journal aussi mooy Haaretz Haaretz mu nekk journal israélien mu ne gannaaw bi nga xamante ne nii jëye bi am nga xam ne c'est un grand scandale ci Israël mooy dañu wane ay photo yu prisonnier yoo xamante ne dañ leen dëpp euh, ñu wane ay xaj ji leen torture waaw mu nekk loo xamante ne ni lu doy ki nga xam ne mooy responsable pénitentiaire bu Israël loolu ci jëmu boppam moom ci moom la jóge donc mu nekk loo xamante ne ni lu doy la wane rek seen ñàkk solo donc euh, loolu mu nekk loo xamante ne moom la ñu jël toujours ci fii nga xamante ne ni moom mooy situation bi toujours ci Israël donc loolu moo tax résistance palestinienne bi toujours ak ñi nga xamante ne ni ñoom la ñu àndal ñoom déclaré nañu dinañu continuer di défendre camp yi ak ville yi nga xamante ne mooy Cisjordanie te wane nañu aussi vraiment seen efficacité ñoom fasaa yëpp muy faction palestinienne yi Euh, sur le terrain waaw donc loolu sax moo yóbbu Israël mu xaw a xoolaat mbiram stratégie bi nga xamante ne ni moom la tegoon waaw donc ñu ne maanaam lii nga xam ne mooy deret bi nga xam ne moom la Israël di continuer di ko tuur ànd ceeg Amérique ak ci gaayam mi muy xam ngeen ko waaw noonu nag loolu dafay nekk rek deret boobu ñuy tuur solo ñoom dafay nekk loo xam ne luy gën a dëgëral maanaam bennoo palestiniens yi défendre seeni objectif waaye aussi tentative maanaam yi nga xamante ne ni eh, eh, Amérique ak Israël dañ koy bëgg a def muy yoo xamante ne ni pour occuper li nga xam ne mooy Cisjordanie dàq waa si Cisjordanie parce que xam ngeen ci semaine bi am na beneen information bu génn mooy ne eh, bokk na ci bu ñu occuper dem ba teg loxo si Jordan may du fal xarbiya dañuy génne ñëpp ñu nekk Beytul Maqdis génne ñu nekk Tuul Karem génne ñu nekk Jenin génne ñu nekk Xalil génne ñi nekk Nablus ak mbooleem camp yi ak ville yooyu yóbbu leen si Jordan yi yóbbu leen Jordan yi yóbbu leen aussi tas leen ci Sinaay waaw loolu moom waxtaan nañ ci ak euh, égyptiens yi kooku moom principe bi d'accord nañ ci comme ni ma leen waxoon parce que jël nañu avance loolu sax moo tax ministre des affaires étrangères bu Jordanie génne ne loolu buñ ko naree def déclaration de guerre la waaye yooyu waxu presse la parce que Israël mu ngi leen occupé jël si Jordanie te ñoom ñoo ko moomoon mujj ko bàyyi kook moom mu nekk loo xam ne encore beneen yen pour le peuple palestinien bi nga xam ne boo dee xool presque quatre vingt à quatre vingt dix pour cent wu population jordanienne d' origine palestinienne la donc moo tax ñoom ñi nga xam ne ñooy xeex. Euh, pour euh, Palestine moom seen bopp ñoom nee nañu peuple Palestine ci jëmu bopp dinañ continuer di résister moo waral it gis nga dóor yi ñu dóor nii di continuer di ko dóor soit ci Gaza wala ci fi nga xam ne mooy sur Jordanie mu nekk ay surprise yoo xamante ne ni moom la ñu réservel euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy israéliens yi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ànd ak ñoom donc mu nekk loo xamante ne ni lu doy waar jëlee nañ aussi ci Reuters lu jëm ci Irak Irak ci jëm boppam Amérique dafa maanaam pour mu retirer li nga xam ne mooy force yi nga xam ne eh, américaine am yi nekk ci Irak mooy Ayn al-Asad nga xam ne yéen a ngi fàttaliku eh, fala Iran dóoroon bi ñu reyee eh, kenn ci généraux mi ci grand savant mi ak yooyu Qasim Souleymani également yooyu yëpp foofu la doon joge irakien ci seen jëmu bopp nee nañu ne États-Unis na fa jóge donc ñoom ci seen jëmu bopp parvenir nañu tey ci benn accord boo xam ne plan de retrait pour force américaine yi nga xamante ne ni ñoo nekk ci Irak ak coalition bi nga xam ne xam ngeen ñu ci tuba tubaab yi ci seen jëmu bopp ne fii ak septembre deux mille vingt cinq war nañu jóge Irak waaye même loolu ci même information bi irakien yi dañ ne non loolu dafa sori. parce que déjà rek présence américaine ci Irak dafay indi insécurité waaw mënatuñ ci dara parce que xam ngeen bés bu ne Irak yi seen jëmu bopp ñu ngi attaqué base militaire yi nekk foofu ak ci Syrie te li ko waral moom mooy seen présence te loolu aussi euh, euh, euh, pan Pentagone ci jëmu boppam am na ay information ci publication yi nga xamante ne ni moom la ñu war a def ci maanaam plan de retrait bi nga xam ne ñoom la ñu wax ak ak irakien yi waa mais defaguñ ko mu nekk loo xam ne sur le terrain waaw donc lii nga xamante ne ni moom mooy également beneen information mooy ne dañ ne Téhéran mi ngi commencé di fournir ay missiles yu graaw euh, à la Russie te da sax loolu moo tax mu euh, position Russie gën a amaat doole tey ci Ukraine te loolu arme yooyu mi ngi jógee Iran waaye xam ngeen diplomatie du lu ñu la wax rek nga ne waaw waaw ay jeu la de ak yooyu mu ngi mel ni ñu ne la wàccal cëppeelul acc ci suuf yooyu yëpp ay attitude la waaye boo dee xool jubluwaay bi benn la moo tax Iran moom ci jëmu boppam moom weddi dina loolu waaw noonu la bu politique bi di militaire bi di def diplomate bi aussi day def liggéeyam ne fourniture d'arme benn benn benn ñoom Iran Euh, euh, euh, araam na ko duñ ko jox Russie te duñ ko jox aussi Ukraine parce que sax nekkul lu loo xam ne lu war te loolu xam ngeen ne guerre ñoom ñooy wax toujours <laughs> ne guerre maanaam li muy indi mooy xaraab ak mooy destruction wu li nga xam ne mooy al bunya tahtiya muy infrastructure te dafay indi aussi ay pertes humaines di rey ay nit donc guerre nekkul lu baax moo tax Iran moom mukk du ay armes maanaam nii du ko jox Russie waaye aussi di ko jox Ukraine sax dafay woote pour que nañu fexe ba jàmm mën a am ñu soutenir lépp loo xamante ne de paix la entre ñaari dëkk yooyu waaye xam ngeen ne aussi foofu euh, euh, euh, Iran dafa am relation militaire stratégique ak Russie te xam ngeen ne drone ak yeneen yi nga xam ne Iran daf ko am yooyu moo indi maanaam en faveur de Russie mu gën a mën a dem donc arme yooyu Iran joxaat na ko Russie ci ay information yu claire yoo xam ne moo tax actuellement Russie ci jëmu boppam jëlaat le dessus bu baax a baax ci kaw euh, euh, ki nga xam ne moom mooy Ukraine waaw donc euh, loolu mu nekk loo xamante ne loo am solo ba tey ba toujours ci ay xibaar jëlee nañ ci CNN d'ailleurs indi na sax xabaar bi muy tudd ay responsable yoo xamante ne ni euh, américain ne Amérique actuellement mi ngi surveiller bu baax li nga xam ne mooy activité militaire Russie euh, yi nga xam ne gën na ko intensifier mu nekk des activités croissantes ci li nga xam ne mooy principaux câbles sous-marins yi maanaam xam ngeen ci wàllu maanaam réseau de télécommunication euh, li nga xam ne mooy fil yi buum yi ci suufu géej laaw donc Amérique euh, xam ngeen ne Russie euh, moom ku ci am kii la ba daye sax amoon na benn dauphin boo xam ne espion la bu Russie defar nga xam ne mu doon espion la nga xam ne moom ci géej bi suufu géej bi genre yu mel nii moom mooy spécialité am gis nga xam-xam fi mu toll donc ba ci jamono yi sax nee na ñu dauphin boobu dee na waaye lu ci mën a am euh, Amérique nee na mi ngi surveiller loolu te xam nga beneen xibaar mooy ne gis nga kaabu sous-marin internet yëpp mi nga aw fi nga xam ne mooy Yémen ñiy dem jóge États-Unis jóge fépp euh, surtout Europe du Nord ci yemen la aw pour dem euh, euh, soit muy muy Chine Corée ak yëpp donc tey Yémen bu am na nu mu doon demee Yémen bu coupé li nga xam ne moom mooy câble sous-marin yooyu c'est fini pour internet ak yeneen yu demee noonu donc loolu yëpp ñu war cee bàyyi xel ci beneen journal buy Israël Hayom muy Israël tey mooy al euh, today wax na ne benn am na officier supérieur israélien boo xamante ne ni nee na euh, attaques yi nga xamante ne ni gis nañ ko ci Cisjordanie nee na problème bu rëy rëy rëy la pour armée israélienne parce que yaakaaruñu ko woon waaw ne dina am attaques yu mel ni xam nga depuis 2002 yow ngay nelaw ah boo ñëwee dóor tuuti daw ñii ñoom ñi ngi defaru parce que wax naa leen ko depuis le guide suprême Ayatollah Khamenei nee na nañu armée ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, euh, Cisjordanie parce que dafa stratégique te mooy guerru maanaam fi nga xam ne mooy yaayu guerre yi donc euh, loolu aussi tax na ba iranien yi def lu bare bare bari bari former nit ñi construire fa ay mbir yoo xamante ne comme ni ñu defee Gaza ak def ko ci sud Liban ba nga xam ne tey loolu jox na leen doole am ay industrie yoo xam ne ñoo koy defaral seen bopp ci suufu suuf si loolu nag Israël bàyyiwu ci woon xel waaw donc loolu mu nekk loo xamante ne ni lu doy waar la moo tax nee nañu ñoom ci seen jëmu bopp autorité boobu nee na li nga xam ne mooy seen objectif bi nga xam ne dañ koo fixé eh, gis nañ ne eh, il faut que ñu xoolaat ko waaw parce que eh, loolu dafay nekk loo xamante ne ni lu doy te nee na sax tey Gaza ba Cisjordanie euh, boobu moo gën a grave que Sud Liban parce que Cisjordanie dafa nekk seen biir xam Cisjordanie dafa mel ni rek sunu nga ñëw fii ci benn dëkk quartier yi ci seen jëm bopp fii quartier euh, juif la fii quartier euh, musulman maanaam ñu ràbboo waaw kër yi ràbboo quartier yi ràbboo bërëb yi ràbboo donc nekk ci seen biir boobu moo gën a grave donc loolu mu nekk tey euh, défi boo xam ne pour Israël il faut moo tax moo bërki démb mu fësal ne dina taxawaat tuuti euh, def retrait waaw waaye wax naa leen ne du retrait rek dafa bëgg a daw waaye dafa bëgg a dellusiwaat parce que mënul ñàkk bañ a ñëwaat parce que ndox du bàyyi yoonam te objectif am comme ni ma leen ko waxee woon moom mooy réoccuper li nga xamante ne ni moom mooy si euh, Cisjordanie Euh, bu ko defee mu expulsé ñi nga xam ne ñoom ñooy waa foofu muy Hebron Beytul Maqdis ak yëpp yóbbu leen Sinaay yi ak ci séddale leen entre Sinaay yi ak Jordanie donc loolu mu nekk loo xam ne lu doy waar waa si Jordanie aussi euh, comme ni ma leen ko waxee ñoom euh, dañoo bett ñi nga xam ne ñooy israéliens yi ci lii nga xamante ne ni moom la ñu yaakaar ne bu ñu ñëwee nooy neex la dañuy ñëw rek jàll def ko comme Gaza te Gaza sax gis nga am na ñu fa échec parce que Gaza ci jëmu boppam résisté ne te résistance su Gaza moo waral tey nga gis généraux yi commencé daanu gis nga même le chef d'état-major général Halevi bu Israël nee na mi ngi xool naka lay démissionné bés bu gisee moment bu propice rek maanaa tawqiit bi maanaam li nga xam mooy timing bi moom dafay démissionné donc gis nga moment bi nga xam ne ci la ñu war a gënoon a gis nañ ne. E, mënatuñu dem moo tax euh, euh, kooku aussi mu chef d'état-major bi wax na ne fi mu nekk nii ñi ngi xeex ak Hezbollah waaye aussi euh, ñi ngi préparer ay mouvement yoo xam ne sax dañu bëgg a attaquer Hezbollah waaye loolu yàgg nañ ko wax bu léegi waaye amul dara loo xamante ne ni lu ci sotti la donc mu nekk loo xamante ne ni ñu ngi leen di xaarandi foofu aussi parce que actuellement Hezbollah mi ngi dóor bu baax a baax a baax a baax dafa gën a accentuer sax ay dóoram ci maanaam nord Israël waaw ba nga xam ne fi mu nekk nii joxe nañu ay euh, euh, ay euh, information que ne ñu fa dëkk na ñuy jege maanaam li nga xamante ne ni mooy bunker yeeg ak fi nga xam ne bu ñu ñëwee tël rek mooy malaysia yi dañ fay làqatu ndax lan parce que arme Hezbollah yi ni muy dale ci ñoom. parce que xam ngeen ni Israël fi mu nekk ni le ñàkk na ko parce que Hezbollah ba euh, avion mi drone mi daf koy tambaambal loo ci kaw asamaan mi te Israël du ci mun dara donc ni dôme de fer du am du am alerte euh, bi nga xam ne bu précoce bu am tu même système yi nga xam ne dañu ko amoon de brouillage ak yooyu de surveillance de contrôle Israël amatu ko au nord moo tax Hezbollah day jékki-jékki rek. Euh, moo tax Hizbullah day jékki-jékki rek euh, yónni foofu ak euh, ay drone am suicide ay missile am ak yooyu yëpp te actuellement nii euh, ki nga xam ne mooy Israël mënatu ci dara donc loolu moom moo tax mu nekk jaaxle lool ci ñoom jëlee nañ ci Reuters benn responsable ci renseignement américain nee na Russie mooy adversaire étranger bi nga xam ne moo gën a actif ci fexe pour influencer li nga xam ne mooy élection américaine yi parce que xam ngeen daan nañ jiiñ Russie ne boo gisee euh, élection américaine yi mu mujj yi amoon ay jeexi jaaxa Russie moo def lu mel noonu ba tey responsable américain boobu cité waat na beneen dëkk mu ne Chine moom. moom li nga xam ne moom mooy li ñu gën a ragal ci moom mooy influencer processus de vote bi moom it waaw bu élection yi amee processus de vote bi moom loolu la ñu gën a yaakaar ci moom gannaaw bi nga xamante ne ni euh, Russie moom effort yi bu yi nga xam ne moom it moo koy def pour élection américaine yi ba tey ci euh, euh, même information boobu wax nañ ne Iran aussi ragal nañu moomit mu influer Euh, ci élection yooyu yooyu yëpp ci sécurité maanaam comme ni ko Russie di defee ak euh, Chine parce que ay dëkk la ñoo xam ne am nañu possibilité boobu moo boo xamante ne ni mooy influencer li nga xam ne mooy euh, élection présidentielle yooyu également am na société wala radio division bi nga xamante ne mooy israélienne nee nañu ki nga xam ne mooy l'administration de Biden euh, euh, gis na ne Hamas wala Netanyahu ci jëmu boppam position yi ñu amee bëgguñu jàmm maanaam ku ko topp bëgguñu jàmm te loolu aussi nekk loo xamante ne luy arrangé la parce que pour trouver un accord il faut que ñaar ñi ci seen jëmu bopp ñu am disposition pour trouver accord alors ko loolu mooy jàmm te loolu gisuñu ko ci diggante Israël ak Hamas donc Israël ci jëmu boppam aussi ba tey euh, rajo israélienne bi di wax ne euh, euh, ñu ngi def le tout ñoom ci seen jëmu bopp pour que maanaam accord du am waaw maanaam Benyamin Netanyahu toujours mi ngi ci dilatoire di manœuvrer pour que accord bañ am jël nañ ci Wall Street Journal muy journal américain ci ay propos responsable ay américain ak i européen nee nañu Iran ci jëmmu boppam waxoon nañ xabaar bi sànq mais dañ ko gën a feddali ne am na ay missile balistique yoo xam ne de courte portée tactique yoo xam ne envoyé na ko ci Russie pour Russie gën a mën a dal ci Ukraine parce que xam ngeen foofu aussi parenthèse mooy ne euh, euh, euh, Iran ci maanaam Russie ci Ukraine bu ngeen sàgganul dina am dérapage waaw bu ñu utiliser wul ay armes stratégiques nucléaires dinañ. utiliser des armes yi nga xamante ne tactique la waaw nucléaire yoo xam ne mën na dal te bu dalee mën na déflagration yi mën na indi problème jege ci Europe te pays bi nga xam ne moo ci njëkk am problème mooy Pologne ak euh, britannique yi ak euh, français yi te xam ngeen ne ki nga xam ne mooy Poutine wax na ne cette fois-ci bés bu ñuy xeex xeex boobu te commencé gul ñi ci di di di di ko di di ci jaab gi euh, bu bu boobaa Amérique ci jëmu boppam dinañ ko attaqué waaw nee na xeex bi du yem rek ci Europe donc euh, loolu mu nekk lu doy waar donc ci delsi ci Wall Street Journal responsable américain yooyu ak européen yooyu nee nañu Iran ci jëmmu boppam doole boobu nga xam ne dañ koy doole Russie jox ko ay armes yoo xamante ne ni yu pour faagaagal gën a faagaagal Ukraine arme yu yu doy waar la parce que yooyu armu yooyu dafay jox un avantage considérable maanaam à la Russie ci Ukraine mu nekk loo xamante ne ni lu doy waar la ci beneen toujours ci benn chaîne israélienne 12 nee na 60 pour cent ci israéliens yi euh, nee nañu li gën a am solo mooy nañu bàyyi otage yi que nañu occupé Philadelphie nañu bàyyi Philadelphie te ñu joxe maanaam fexe ba étage yi ñu man leen a bàyyi. chaîne euh, 12 aussi nee na 61 pour cent ci israéliens yi yaakaaruñ ne euh, euh, gouvernement bi mi ngi def li ko war pour que ñii nga xamante ne ni ñoom ñooy otage yi ñu mën leen bàyyi loolu gouvernement bi loolu nekkul itteem. donc ñu jeexale ci agence Bloomberg xam ngeen ko nee na Yémen muy feddali li ñu wax li Yémen yi di déclaré woon te ma junjoon ko sànq nee nañu yemen mooy constituer défi bi gën a mag taxaddi bi gën a mag bi gën a sérieux ci li nga xam ne mooy la liberté des maire mooy maanaam fexe ba nga am ne xorriyatu tasarruf euh, baxri yi euh, maanaam bi nga xam ne mooy bateau fu leen neex jaar actuellement loolu amatuñ ko waaw ci mer Rouge ak ci ba ci même mer Méditerranée te loolu depuis des décennies maanaam ay fukki at ak yu topp loolu commencé nañu am te donc loolu dafay wane d'après agence Bloomberg ne superpuissance bi nga xam ne mooy Amérique épuisé na waaw donc euh, euh, euh, sonn na Amérique mënatul dara ci Yémen sonn na lompoñ na loolu moo tax gis ngeen waxoon naa leen ko ci ci fan yi jëmu jël ay Euh, batoom génne leen sax ci fi nga xamante ne ni moom mooy Asie te euh, Reuters wax ko beneen beneen agence de presse euh, américaine donc muy wone déclin inexorable de l'Amérique muy zawal boo xamante ne xatmi la li lil wilayatil muttahida donc Bloomberg boobu muy agence américaine nee na Yémen ci jëmu boppam moom moo indi provoqué fayitu port israélien bi ñu tuddee Eilat ci golfe Aqaba waaye aussi Asdod waaye aussi actuellement xayfa te xam ngeen ne actuellement euh, loolu dafa jur problème bu mag a mag a mag ci Israël jur tension ci fi nga xam ne mooy port de xayfa te xamuñu tey la wala ëllëg yéménit yi boo moytul foofu la ñu nar a dóor parce que bu leen fàttali ne Israël port de Hodeida la ñu dóor te ko port contre port la ñu waxoon aéroport contre aéroport civil contre Euh, euh, euh, civil donc loolu aussi ñu ci bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax beneen bi mooy am na beneen tension boo xamante ne bu am na xam ngeen ne avion wu Maduro mooy président wu Maduro muy Nicolas Maduro mooy président wu Venezuela lu tax ñu indi information bi mooy ne américains yi dañoo nangu benn avion transféré ko ci seen maanaam Floride muy seen benn dëkk loolu nag mu doy waar parce que lu tax dañoo am problème ak moom te soubassement bi ñu bari duñu ci bàyyi xel mooy ne ñoom dañoo jàppale Palestine bu baax a baax a baax ba amoon fi problème léegi jàppalanteeg Iran léegi actuellement Iran ak l'axe de la résistance xam ngeen ne bëggoon nañu bi Maduro amee problème mu euh, pétrole ñoom seen Iran ci jamono euh, ki nga xam ne moo doon président Rouhani dañ fa yóbbu seeni bateau pour jàppale ko léegi nag américain yi bañ loolu ne dañuy menacer li nga xamante ne ni moom mooy euh, euh, bato yooyu dañ ko téye mais ñemewuñu ko woon téye tu ba bi ñu demee sax af def benn tentative yi iran yi aussi defaat nañu beneen tentative contre américains yi donc ñu bàyyi mu jàll léegi nag xam ngeen ne Iran ci stratégie d'encerclement aussi ci Amérique ak détruire li ñu tuddee la doctrine de Monroe kooku dinañ ci ñëw incha allah ci wàllu stratégie loolu nag moo indi Iran actuellement ñi nga xam ne ñooy formateur muy Al-Quds les gardiens de la révolution ak Hezbollah ñi ngi Venezuela di leen former parce que ñoom it dañu nekk en hostilité ak euh, euh, Amérique donc loolu moolu moo indi li nga xamante ne ni moom mooy li li li nekk donc euh, mu nekk loo xam ne li ñuy topp la incha allah fu mu mën a toll rek am na ci ay information yu bari mais lu duuf ci nag bi yëpp xajandoowul ci eh, cin bi ci bi dañ ciy jël benn par benn xam ngeen comme niñ leen ko waxe woon mooy ne actuellement ci pays arabes yi ci seen jëmu bopp xam ngeen ne dañoo am ay relation yu mag a mag a mag ñoo xam ne diggante ñoom la ak eh, ki nga xam ne moom mooy Israël te li ko indi xam ngeen ko moom mooy euh, lii nga xamante ne ni signé woon nañ ko muy ay accord yoo xam ne yu yu yu yu am la ci ñoom xam nga depuis 1945 ak euh, Keynes te démb waxoon naa ko léegi nag euh, accord yooyu ci seen jëmu bopp moo leen yóbbu ñoom ñuy respecté parce que Israël moo yor seen sécurité sécurité boobu nag gis ngeen moo tax ci gàttal rek mooy ne euh, euh, surtout ci li nga xam ne moom la ñëpp bokk muy pèlerinage à la Mecque xam ngeen ne euh, ñi nga xam ne ñoo koy contrôler mooy sécurité bu Israël sécurité boobu nag ki nga xamante ne ni moo ko yor moom mooy NSO NSO dafa nekk société boo xamante ne bu rëy mu nekk société cabinet de recherche. boo xamante ne bu rëy la bu Israël d'ailleurs sax ñoom ñoo def li ñu tuddee Pegasus waaw donc moo tax ñooñu nag ñoom ñooy jox des données maanaam euh, israéliens ci Houthiyun yi ak yëpp parce que ñoom it Israël euh, Arabie Saoudite comme ni ngeen ko xamee ñoom ñoo ko installé foofu Pegasus mu ne Pegasus nag mu nekk benn euh, li ñu tuddee. Euh, euh, kii la ci wàllu technologie loo xamante ne nii euh, li tax ñu def ko moom mooy pour mu mën a maanaam li jëm ci wàllu espionnage technologique donc mu nekk loo xamante ne ni lu lu doy waar la Pegasus nag bu ngeen demee ci lan mooy Pegasus Pégagis d'abord euh, bi nga xam ne moom la ñu dénk sécurité Arabie Saoudite nga xam ne lépp moom moo koy saytu depuis des années mu nekk loo xamante ni doy waar ci dëkku jullit nga xamante ne ni mooy ula qiblatul muslimin muy euh, fi nga xamante ne ni euh, dafa am solo trop Pégagis bu ko déggee ci wàllu mythologie maanaam li ñu tuddee ci ay asatir Euh, euh, soit la mythologie grecque ma mu yunaani yoon yi asatirul yunaaniya moom al xisaanul mujannaha lañ ko tudde mooy maanaam euh, cheval ailé divin mooy comme ci arab mooy ci mythologie arab moom mooy wala islamique mooy al buraq al qura al buraq bi ngeen ñëwoon moo yóbbu yonent bi mu rañaani ngi tudd Pegasus Pegasus nag boobu mu ngi ci mythologie grecque romaine euh, nga xamante ne ni dañu naan sax mooy baayam euh, mooy Poséidon waaw mu nekk mu judd nag ak frère bu ñu tudd Chrysawor ñu euh, ci ci deretu ki nga xamante ne mooy Gorgone donc mu nekk loo xamante ne ni ci mythologie grecque da nga ko ciy gis ci mythologie romaine da ko ciy gis mythologie égyptienne da nga ko ciy gis ba ci musulmans yi donc mu nekk loo xamante ne ni partout parce que xam nga le mouvement des idées euh, dafa yàgg am entre les civilisations donc loolu moom mooy Pegasus gis nga ci ñun ñi ñu tuddee ko alburaax moo tax am na ay ci narratif yoo xamante ne ni euh, xam naa dinañ ci ñëw it fii du place am euh, Pegasus boobu nag li nga xamante ne nii mooy lan la mooy logiciel la boo xam ne espion boo xam ne destina dañ ko maanaam jubluwaayam mooy attaquer ay smartphone comme sunu téléphone yi nga xam ne smartphone wala iOS wala Android waaw daf ciy dugg bu ci duggee dafay mën a jël données yëpp parce que dañ ko concevoir euh, depuis mille neuf cent euh, depuis deux mille treize waaw entreprise bi ko def mooy NSO Group mu nekk première maanaam bi nga xamante ne ni groupe ci ci euh, ci wàllu domaine bi wàllu cyber euh, euh, espionnage ci euh, Israël mu nekk loo xamante ne ni lu kéemaane la ñooñ nag ñoom la Arabie saoudite jox lépp luy sécurité pèlerinage parce que ay appareil la boo xamante ne boo ko xasee ba am mën nga ko installé à distance ci benn appareil boo xam ne mën na contourner système yi nga xaman ne yëpp de sécurité te dafay tax nga mën a dugg ci fichier wu ki nga xamante ne ni moom ngeen ciblé muy message am muy photo wala mot de passe wala yi nga xamante ne moo nekk ci Android wala espace euh, espace euh, smartphone yi donc gis ngeen ko euh, mun na aussi di déglu ay appel waaw Pegasus day déglu ay appel téléphonique et aussi mën na déclencher ay enregistrement yoo xamante ne audio wala caméra wala géolocalisation mu nekk loo xam ne lu doy war Euh, euh, moom Pegasus Pegasus boobu aussi mën nañ ko considérer comme une arme de guerre euh, au-delà du renseignement parce que renseignement ak militaire du benn parce que yi bii dafa nekk lu sensible moo tax jaayam ci jëmu boppam maanaam li nga xam ne mooy licence d'importation ministère de la défense rek moom moo koy joxe waaye ñoom ñoom sax ministère bi nee nañu am na ay pays yoo xam ne ñoom du ñu ci maanaam duñu ko duñu ko espionner duñu leen ko jox lu mel ni États-Unis lu mel ni Canada lu mel ni Royaume-Uni Australie ak Nouvelle mais France bokk ci parce que France xam ngeen bu ngeen di xool ci wàllu géostratégie am Amérique dafa am première euh, maanaam euh, euh, xaritam première xarit yi mooy anglo-saxon yi moom mooy Canada mooy Royaume-Uni mooy Australie mooy Nouvelle-Zélande kuy ñëw doog a ñëw tu donc te sax malgré cela am na ci. dafay am lu ñu tànn espionnage ennemi waaw ami maam comme nu même ay tir ami euh, noonu lay amee aussi ci wàllu espionnage waaw sama xarit euh, li ñu naan xar euh, soppe soppey waaw sama soppee sama soppe la sama noon la maanaam bu jotee mu def ak man noono mu sama xarit boobu joué comme noon bu bu bu bu bu bu bëggee def ak man xarito mu joué ak man comme xarito moo tax perse yi naan eh, eh, ne ne ne ki buñ la ne kii ça c'est mon ami ennemi <laughs> il dushte dushte ma sama xarit la waaw wala waaye ki dushmane ma waaw duste dushmane ma waaw sama xarit noonu la donc sama xarit noonu la c'est mon nami ennemi donc gis nga eh, loolu dafa yàgg ci am loolu nag eh, nga xamante ne ni moom mooy NSO nga xam ne tey moo yor sécurité Arabie Saoudite ak dëkk yu bari ah dëkk yu bari ah waaw dañu ci amul ay lu leer mais dëkk yu bari mooy pays africain yeeg yu yëpp eh, eh, am na fi ba presse bi wax ci ak yu demee noonu defe naa sax fii ci Sénégal presse bi waxoon na ci lu bari bare bari société boobu nag nga xam ne moom lañuy ñu dénk sécurité Arabie Saoudite ak beaucoup ci pays arabes yi moo ñooñu euh, ñu ngi leen jële ci maanaam unité de renseignement militaire bi nga xamante ne ni ci wàllu cyber surveillance bi gën a performant fa la jóge muy unité huit mille deux cent bi nga xam ne moom la Hezbollah attaqué woon barey général bi ak officier yi ci nekkoon ak yu demee noonu nga xam ne unité boobu moo doon yor lépp luy ñuy rey ci wàllu jullit ñi ci monde bi unité boobu moom moo koy def waaye également Euh, lépp loo xam ne jaxasoo la entre musulmans ci seen jëm bopp ñoom ñoo koy créer waaw entre chia ak sunna créer ay faux compte fii ak yooyu bu ko defee di tweeter fii ak yooyu ak ci Facebook bi ak yooyu yëpp bu ko defee sunnit yi ak chiit yi di xeex guddi ak bëccëg moo tax euh, euh, ñi nga xamante ne ni ñëpp mooy un quart ci société bi nga xam ne mooy société mère bi defar Pegasus presque boo dee calculer nga xaaj ko ñeenti yoon ñoom ñëpp ci euh, euh, Pegasus euh, ñu ngi jóge ci groupe ñu ngi jóge ci ENSOA donc mu nekk loo xamante ne ni lu doy waar donc boobu nag moom mooy bi nga xamante ne ni mooy bi gën a gën a gën a gën a grave parce que comme ni ma leen ko waxee day dugg def loo xamante ne ni forme d'espionnage yoo xam ne kenn du ci mun dara parce que bu ko defee mu nekk loo xamante ne ni eh, day indi jiixi jaaxa ci dëkk yi loolu moo waral nga gis pays yooyu nga xamante ne ni ay pays arabe lañu ñu dugg ci eh, di ko utiliser mais aussi d'autres pays africains ci loolu moo tax eh, bu ngeen dee xool Riyad ci jëmu boppam def ci am doole trop trop trop trop waaye aussi. Euh, lii nga xamante ne nii mooy euh, euh, dañu ne sax tête de pont normalisation yi entre dëkk yooyu ak surtout Arabie Saoudite ak Israël waxoon nañ ko fi démb wala bërki démb que ne Blinken nee na loolu il faut que mu am diggante ñoom parce que loolu rek moo ci descend parce que sinon lépp luy coopération militaire économique Euh, euh, euh, culturel bu ma ko munee wax ak yëpp ñi ngi ci ànd ak ñaari dëkk yooyu muy Arabie Saoudite ak Israël moo tax service de renseignement yi israélien ci ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy saoudien ñoom ci seen jëmu bopp ñu ngi coopéré bu baax et sax ouvertement ak service yi israélien yi moo tax loolu nag mu nekk loo xamante ne lu doy waar mais yewul rek ak ñoom waaye yeneen dëkk yi nga xamante ne yëpp dañ leen wër loolu mooy indi léeg-léeg gis ngeen ko euh, nit dem foofu euh, jekki-jekki rek réer gis ngeen ni ñuy def Jamal Khashoggi euh, yooyu yëpp ay complot yoo xamante ne ni dëkk yooyu seen loxo génn ci gis ngeen niñ ko reyee Turquie rendi ko daggate ko ak si mu nekk loo xamante ne ni sans précédent musul am donc loolu moom moo tax Euh, euh, ngay gis même euh, ci biir loolu nga xamante ne seen coopération mu jur nag ay problèmes yoo xamante ne ni yu waar parce que xam ngeen ne actuellement ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy maanaam épaulé lii nga xamante ne ni moom mooy ces services de renseignement arabe du kenn kudul ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy israélien mu nekk loo xam ne euh, lu doy waar loo xamante ne nii lu mu jur euh, dafa euh, doy waar trop trop trop trop trop pour les populations yi nga xamante ne nii ñoom ñooy ñoom ñooy population civile bi parce que xam ngeen ne avec les nouvelles guerres dafa am jumtuwaay yu bees yoo xam ne moom la ñuy utiliser te Pegasus daf ci ay lool lool lool lu mel ni ci maanaam comme ni ma ko waxee sànq espionné waaye aussi de grande envergure ci wàllu euh, parce que xam ngeen léeg ci wàllu cyberguerre am na lu ñu tuddee les cyber attaques nga xam ne dafay cibler ay infrastructures yoo xamante ne critique yu am solo yu do yoo xamante ne ni yu sensible système de communication yi ak base de données yi comme ni ma ko waxee sànq te loolu mu nekk loo xamante ne ni état yi léeg dañ koy soxla parce que dafa bokk ci jumtuwaay yu bees yi donc loolu yëpp bu ci intelligence artificielle nga xam ne dañ koy utiliser pour analyser de de sa maanaam de grande quantité yoo xamante ni de données di prévoir ak en même temps mouvement wu ennemis yi ak euh, optimiser li nga xamante ne mooy les stratégies euh, euh, militaires donc mu nekk loo xam ne technologie de communication yu avancé la ci système de communication yoo xam ne ñu sécuriser la ak ay réseau yoo xamante ne de données en temps réel yoo xamante ne ni mën na ko joxe moom Pegasus mais aussi ak yenn jumtuwaay yu mel ni moom ci coordination boo xam ne dina gën a efficace ci opération soit policière militaire de sécurisation ak de euh, euh, li nga xamante ne ni remettre l'ordre donc mu nekk loo xamante ne ni euh, pays yooyu moom la ñu gis ci Pegasus ak i mbokkam di ko utiliser moo tax nga gis pays arabe yi ci seen jëm boppam di ko utiliser bu baax a baax surtout contre les palestiniens ak les musulmans parce que xam ngeen ne am na ay ONG yoo xam ne yu pays arabe surtout imarati ak yeneen yu ma euh, bëggul tudd ak saoudiens yi surtout imarati yi yóbbu nañu dañuy yóbbu ay aide humanitaire Gaza dañ ko doon yóbbu mais ci biir suuk weer dañ doon ànd ak ay espion jor ay gadget yoo xamante ne ni euh, euh, dañuy bëgg xool situer fan la maanaam euh, nafaqaat kii euh, maanaam li nga xam ne mooy tunnel yi fan la féete pour ñu mën koo signaler li nga xam ne mooy israélien yi loolu kii nga xam ne Hamdan euh, bu ki bi nekk Liban nekk représentant Hamas boobu rek ci fan yi mi ngi tudd lu mel noonu mu koy mettit lu trop donc ci gàttal daal loolu mooy li nga xam ne moo tax Israël am relation yu am doole ak pays arabes yi ñu ci ñu ciy jàppalante bu baax di joxante ay information pour lan parce que xam nañ ne bu Israël daanoo ñoom seeni régime yi dafay daanu te bu seen régime daanoo dafay nekk au bénéfice des populations des masses alors que loolu dafay indi beneen problème ci ñoom moo tax nga gis euh, ñu xar ci seen tànk tubéy lépp lu ñu xam suba gi euh, du du fanaan du yendu ci ci ci ñoom Israël aussi di leen jox données yi te ñi ko kuwaafe mooy les États-Unis d'Amérique donc euh, ñu ngi leen di santaat bu baax di leen gërëm di leen ñaanal di sakku ci yéen ñaan yéen ñi ànd ak Mouhalim Info International fu ngeen mën a nekk ci àdduna bi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh